أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom nu ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ba tey ñu ngi ànd ak yéen ci gazwatu xaybar ay xare bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dajewoon ak yahuuti xaybar ci xare xam ngeen ne ci xare boobu dafa am xew-xew yu doy waar yi ci xewoon bokk na ci poso posone woon nañ ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xare boobu mu ne ci xare boobu ci la kenn ku jigéen di yahuut joxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn pooju xar boo xam ne pooju xar ma dafa amoon poson ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñamee sàqami ko lenn ci borom xam-xam yi nee nañ pooju xar maa yuuxu ne ko yonent bu lekk ci man ndax dañ ma posone ñan ñi ne yonent bi moo sentir ne yàpp bi dafa am poson rek mu daal di bàyyi fekk am na ñum ci doon lekkandool ci sahaaba yi bokk na ci ku tudd Bishr ibnu Bara kooku moom ba mu lekkee ci yàpp ba ca saase la faatu ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la mu lekkoon ci yàpp bi poson bi daf ko nàmpatal ci yaram bi lenn ci poson bi daal di génn moo taxoon léeg-léeg ci dundam mu daan nàmpatalu di gajju bi loolu amee moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam indulu na ndaw si saxaaba yi dugg xaybar ba indi ndaw si ñu laaj ko jëf ji mu jëf lu tax mu def ko posone yonent bi lan mooy sabab faajaabat ndaw si tontu na mu ne in kaana nabiyan lan yadurruhu wa in kaana kaadiban araahana allahu minhu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaje waaw yow luy sabab ci nga posone ma mu ne bu dee ab yonent nga dey biir na ma ne yàpp bi nga lekk du la lor waaye bu dul ab yonent nga dee ñu noppalu ñaari donc moo tax ma def ko biir na ma ne bu dee ab yonent moo lekk poson yàlla dina ko musal waaye bu fekkee ab nit simple la bu dee ñu noppalu ci woote gi muy weeti na yonent la loolu moo tax ma daal di lay posone waaye gis ngeen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam leen di won ne woon ab nit ku yàlla màggal la yàlla tànn ku yónni ko ci jaam ñi mooy jikkoom ba moo feeñaat mooy faafaha faafa anha alayhi salaatu wassalaam yonent bi jéggalaat na ndaw sax baal na ko ndax loolu mooy jikkoom moom yonent baale rek fa bima rahmatin min allahi linta lahum wala kunta fazzan galida alqalb lan faddu min xawlik borom bi tagg na ko moom yonent bi ne ko ci yërmande yàlla tabaraka wa taala la la gaañi wëre boo noon ku ñàng ku tar ku doy waar kon gaa yi duñ la wër moo tax yonent bi jéggal na ndaw si waaye bokk na ci xew-xew yi xew ci xaybar ba tey mooy ziwaaju safiya yonent bi alayhi salaatu wasalaam denc na kenn ci soxnay xaybar ci yahudiya ndaw su tudd safiya ginnaaw victoire bi ak ngañaayi li yonent bi alayhi salaatu wasalaam denc na soxna soosu yonent bi def canam mooy ci goreel ko mu daldi tuub nekk ab jullit jullit ñi kontaan ci lool daldi goreel mbay yàlla mbooleem ay mbokkam yi jàppoon def leen jaam keroog loolu moo xew ca xaybar waaye bokk na mbokk yi ci la xew ca xaybar keroog araamal nañ ko sëy muy sëy boobu nga xam ne tey chia yaa ngi koy def wa naha alayhi salaatu wasalaam wa huwa bi xaybar an nikaahi l muta wa huwa nikaahu li ajal sëy boo xam ne day am contrat dama fee tukki si weer dama lay takk weer su ma ñibbee fase naa la wala at laa fi am nañ sëy baat bi jeexee ma fase la loolu dafa xaram yonent bi da ko araamal keroog ca xeebar waaye xam ngeen ne waxat kaana xalaalan fil jahiliya lu daga noonu la ca ceddo ga démb ànd ak moom ay fan ay diir daal di koy araamal waaye keroog ca xeebar yemuñu rek ci araamal sëy yóbbal waaye araamal nañ foo si lekk mbaamu kër mbaam yi nga xam ne dañ leen di yar ci kër yi muy mbaam sëf keroog araamal nañ ko fekk cin yaa ngi fees dell ñor ñëpp di waaj a lekk di waaj a yekk di waaj a feraj seeni sobleeg boole ko ci seen mburu ku nekk di espérer ñii di dëbb jimbo ak xorom lislaam ne araam na gars yi daal di këpp cin ya allahu akbar bu doon ñun nag tey dañuy lekk ba suur dooga ne ah ngeen ne luñ ci wax ñu ne araam na nga ne alhamdulilah man de suur naa ba bare waaye keroog ca bañ ko toggee ba mu ñor ba ñëpp di waaja yaakaar ne dañu war a xéewlu yonent bi woo sahaabam ba aba talha ne ko yëgleel mbaa mu sëf araam na gaay daal di këpp ci nii kenn lekkul keroog allahu akbar kon mbokk jullit yi lii ay xew-xew la yu xewoon ca xaybar keroog mooy posone woon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent bi denc na fa soxna su tudd Safiya waaye sëyu yóbbal araamal nañ ko fa waaye lekk mbaamu kër araamal nañ ko fa waaye mbokk yi bokk na tamit la xewoon ca xaybar keroog mooy négocier ba nga xam ne négocier yonent bi alayhi salaatu salaam defoon na ko ak waa Tayma yéen tamit ay yahud lañ ba ñu yëgee li jullit ñi def ca xaybar ñoom moom gaawtu nañ yónnee ci yonent bi négocier ne ñoom danañ fay impôt sax ci seen dëkk toog duñu génn nekk ci sécurité nekk ci dal yonent bi alayhi salaatu wasalaam nangul leen loolu ñoom yahudu tayma waaye tamit bokk na ci la fa xew fatxu waadil qura keroog yonent bi tamit ubbi na benn xur boo xam ne mu ngi tudd qura ay yahud ñoo fa nekkoon ñooñu tamit tuub nañ bala yonent bi tuubloo ñu lànk yonent bi xeex na ak ñoom jullit ñi rey leen am ñuñ ci jàpp daal di màng seeni koom yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di leen di teg seen kaw impôt waaye bu mu leen libéré bàyyi leen ne leen nag suuf si maag yéen ñoo koy bokk loolu donc mooy nekk charte ndeysaan yonent doon la leen di yónnee yenn saa yi Abdullahi ibnu Rawaha bu ñëwee di xool suuf sa leen yonent bi bàyyee woon suñ ci bàyyee ba pare naka lañ koy séddoowee ñoog jullit yi waaye benn bis ndeysaan Abdullah ibn Rawaha ñëw yahud ne dañ koy ger dañ koy ni mu amee ci àdduna rek dañ koy ger dañ koy jënd mu ne da ngeen maa bëgg a jox ger ngeen neexal ma bali yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax duma ko def wallahi maa ngi leen di yëgal ne kama bàyyeekoo moom laa gën a bëgg ci àdduna yéen ma jëm laa gën a bañ ci àdduna ndax yéen ay mbaam xuux ak ay golo ñoo ma leen gënal xanaa xamu leen ne man fa ma bàyyeekoo kama fa bàyyi amul ku ma koy tollaleeg ci kaw suuf mu ne waaye li ma leen di bañ yépp ba tollale leen ak ay golo ak mbaam xuux noonu laay maandoo ci seeni biir ndeysaan ñooñu it yahud yooyu it noonu la leen yonent bi def ba mu jugi madinatul munawwar set na wicc ci ay yahud yi nga xam ne ñu ngi doon xaar jullit ñi lu bon dal seen kaw ba ñuy bég fu ñu toll di kontaan waaye jullit yi mujj nañ madina amatul ab yahud la war madina amatul yahud ndax yahud baaxul baaxul guddi baaxul bëccëg yahud du mu sa baax ndax yàllaa leen alak yàllaa leen rëbb alkande yàlla moo dal seen kaw fu ñu mën a nekk ci kaw suuf du ñu texe ndax alkande yàlla moo leen dal ndax ay nit yu salte lañ seen pas-pas baaxul seeni melokaan mooy yàggaray ay yonent ak ay nit ñu baax nit ñoo xamante ne ci sobe la ñuy dund amuñu civilisation amuñu civilisation bu rafet ak culture loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala rëbb leen moo tax bu yonent bi ñëwee Medinatu Munawwar siñente ñoom siñente ak ñoom ay pak ak ay ay accord dañu jàmmoo gis nga fu ñu mujj mooy fecc yépp war yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi fan la mujj ak ñoom pour am jàmm mooy pour jullit ñi noppalu min sharri aduw kaana yatarabbasu bihim addawair ci noon boo xam ne jamono bu nekk mu ngi doon toog di xaar jullit ñi musiba këpp seen kaw waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla dimbali ko ba mu mucc ci ñoom mu ne jullit ñi mujj am jàmm ci Médine ndax yonent bi génne na leen fa ci nii ak ca naa kon lii mooy gazwatu xaybar waaye buñ dir ñëw ci résultat yi danañ gis ne ginnaaw sulhu xudaybiya desatul ci naafiqi lu dul ay yahud loolu moo tax yeneen bi alayhi salaatu wasalaam jël président naafiqi ci àddina daal di koy def ci ñoom muy abdullahi ibnu ubay ndax ay plan yu mu tëraloon ba yàlla tabaraka wa taala dimbali yonent bi alayhi salatu wasalaam yonent bi gañe leen fantasara al muslimuuna ala al yahud fi xaybar yàlla dimbali na jullit ñi ñu gañe yahud yi ca xaybar yàlla dimbali jullit ñi ba mu dammate naafiq yi ci Médine ñu daal di perte seen coalisation yi ñu doon coaliser ak ñeneen ñi lépp luñ doon fexe daal di naax saay torox ak alkande lañu mujjee ñoom yahud nee na waaye waa Quraysh ñoom i tamit kaanat tataraqabu abnaa hadihi alxazwa ñoom it xam nga ñu ngi doon xaar yahud yi am ndam ci xare yooyu waaye yàlla tabaraka wa taala pertal na leen dëkku yahud yëpp daanu nañ seen politique yi ñu doon def ci golfe arabe bi perte lañ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ubbi xaybar jullit ñi am ndam màng seen alal yi yàlla bégal leen ci comme ni ko alquran waxee ci suratu fat waadakum allahu maganima kathirat taaxuzunaha fa ajjala lakum hadihi qaala almufassirun yaani sulhu xudaybiya walganaim kasir xaybar yàlla dig na leen màng bu bare bare bare bari yàlla ubbil na leen defal leen négociation sul xudaybiya waaye ca xaybar yàlla may leen màng koom bu dul jeex ginnaaw ba xaybar daanu tey ma daal di mujj yonente bi teg seen kaw impôt ñu ubbi waadi qura yonent bi gañe leen teg seen kaw impôt bokk ak ñoom seen suuf kon mbokk yi lii mooy lenn ci ay résultats yu nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam amoon na ko ca xaybar incha allah bismillahi tabaraka wa taala ci fan yi ci sunu kanam dinañ def al ibar wal izaat al mustafaadu min gazwati xaybar suñu leçon yi di ñëwaat dina nekk ay kéemtaan ak ay leçon yu ñuy tiire di ko jëriñoo ci xeex boobu nga xam ne moo doon xaybar mu tolloog juróom benn tomb incha allah yoo xamante ne war nañ ko jàngat déglu ko bu baax a baax a baax mu nekk ay leçon yu ñu war a tiire ci gazwatu xaybar bi iznillah ci fan yi ci sunu kanam ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu def si ñun dégg ak topp di jégglu mbokk jullit yi ci njuumte yi di ziyaare mbokk yi di ñaan yàlla tabaraka wa taala nanu yàlla nangul asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu